Now, as the Gambia discharged 21 out of the 25 cases of the COVID-19, management of the country's treatment center is positive of a smooth trend in the management of cases. Currently, no medication is recommended to treat COVID-19 and no care is available. However, Researchers are testing a variety of possible treatment, but countries are not waiting on any complete package to carry out with their treatment programs. The Gambia appears to be on a sound footing in the management of cases of the COVID-19. Details of that in this report. The head of the country's sanatorium has said some of the treatment procedure used by health workers to ensure the recovery of the COVID-19 patients. His observation came after the number of active coronavirus cases dropped down to three cases, making the Gambia among countries with the least number of COVID-19 cases in the sub-region. Dr. Abubakar Jain said although there is no cure for the virus, health workers will diagnose and treat the patients of illnesses they might have along with the coronavirus. Ah, ñu sonal aha wanted see diggante bi su ne téeméer nit la na am 20 boo xam ne dinañ mën a am feebar euh, serious feebar si bi and out of the 20 dinañ am a 5 percent of them comme 5 of them ñoo xam ne dañoo am very severe illness ak ñooñu most time ñooñu mun nañ si dee so diggante bi lu lu tax ñu leen day indi fii mooy euh, aar leen xool leen ndax ñooñu si yooyu leen bokk ndax si bokkuñ si. He said, as in the case of other illnesses. coronavirus is treated by recommended food supplement and medication prescribed by specialists. soo jëlee garab jëlloo garab dina bàyyi xam nañ noo noo lay amee soj eh, soj bi nga dégg eh, maire yi di wax ne toogal pepper soup nga def si kaan yi oo defaral jinja nga naan oo defaral lemon ak ak tii nga naan xam yooyu yëpp wonjo sax bunja buy aha xam nga yooyu moom loolu ay comme ni dimbale la si métti métti sa bakken bi o sa put bi métti boobu la boobu la dimbale c'est-à-dire euh, nekkul ne fa vaara si boppam la moo rey because ñooñu daa noon anti vaara so bii tamit feebar noonu la mel lu ko utee ñooñu noonu mooy benn dafa gaaw a waale tout su la amee soo amee yeneen feebar ñoo xam ne comme ni ñoo xam ne ñu euh, law si euh, mag yi and then nga mag de mun na laa gën a sonal ñoom ñu la gën a sonal ak nu mu na dee gën a sonal mooy mun naa gën a nekk serious illness boo xam ne sa ban sa sa bi ah, doo mun a doo mun a nokki bu baax ah, yeneen yi du fata rek de mun naa tax sa sa comme nii di ko amee severe septic infection so yooyu yëpp ay mandarga ñoo xam ne 20 percent ñoo ko am and most of time ñoo am high blood pressure i am diabetes ñoo xam i am HIV comme ñeneen fever, New ñoo ko gën a am and then you have mag nañ So xale mom. Um, normally ñooñu jundee am very severe forms of it aha so Luni ñu dimbale Gambia most of them I xale aha mag baru. bari now, fa foog naa ku it is something years la and then another sixty something years wante ñooñu two or three of them rek la ah ñu si def He added that although his team is working tirelessly to help in the recovery of the remaining patients. The sanatorium remained the only treatment center for the COVID-19. He used the opportunity to urge the public to follow all measures by health authorities in order to contain the spread of the global pandemic. For iAfrica News, I am Aminata Job. The situation of coronavirus there in the Gambia has only three patients remain under treatment.